Yeah guys, what's good, what's good? It's your King Lord West. Guys, salam alaikum, salam alaikum. Dal jàmm sur ma YouTube West Show TV comme ni ñu koy faral di waxee chaque fois tey moom rap la. Let's go. Hey, c'est Cagoule boy. Bu jeexee rek jeex na. Mais commencé nag. Ñi fo. Suñ temps. Di def neex. ok gars yi gannaaw moom ma defee li nga xam moom moo di sama freestyle let's talk about hip hop si image lay concentré woo yi nga xam ne artistes yi war nañ ko am pas seulement musicien pas seulement artiste ah, mais aussi tamit mbalaxmaan wala képp koo xam ne da nekk si showbiz bi nga nekk benn artiste am na benn boo xam ni moom nga war a ñëwee te si loolu nag dañuy tànn li nga xam ni moom moo image image moom mooy première affaire bi nga xam ni l' artiste daf ko war a utiliser après bi mu posé woo question quatre question la artiste bi war a posé wu première question bi mooy lan moo tax muy rap comme ni ko waay di waxee da ngay rap pour gel dangay da rap pour am xaalis dangay ngay rap pour am buzz da ngay rap pour carrière da ngay rap pour am li nga xam ne moom moo di euh, <laughs> ni ñu koy waxee sax mooy temps yi yi la ñu jël waaye mooy sponsor yi gars yi la ñu jël sponsor yi ba fàtte rap bi bon da ngay rap pour lan pour lan lan moo tax ngay rap il faut nga xam ko en tant que artiste lan nga mën a proposer nit ñi bañ la war a mën a suivre il faut que yow nga xalaat ko bu baax. lan nga war a mën a proposer ban style nga bëgg a def lan nga bëgg a woy il faut gars yi xam ko moo baax su boobaa nag nga dem si ban monde nga bëgg yóbbu ban univers nga bëgg a yóbbu li nga xam ne moom moo de artiste boobu noonu et aussi tamit sa artiste yi euh, sa ñi lay déglu tamit ban retour nga war a am si ñoom loolu mooy quatre questions yoo xam ne képp koo xam ne artiste nga ak loo mënti def war nga posé wu loolu noonu quoi loolu moom c'est la base boo paree loolu nag si ngay doog a li nga xam ne moom moo di sa idéologie boo xoolee nag Ramgar Sène dafa am benn artiste boo xam ni il a beaucoup réussi ça mu di kan mu di Canabasse Canabasse dafa créé benn idéologie boo xam ni képp ko xam ni rappeur nga nga jege ko yaa xam yaa ngi buzz lap ba léegi wala génn nga buzz lap idéologie boobu noonu da lay contaminer ba nga xam ni même boo demee si biti sax yow da ngay comporté woo ak li nga xam ni moom moo di idéologie bi nga xam ni base créé na ko mooy maanaam gën la undu gën la clean yaa ma gën a nëw nga xam ni moom moo di fansam itam ñu koy suivre bu baax suñu waxee rek di nga xam ni carrément kii fan sa base la parce que base dafa am lu mu imprégné ci fans yi te loolu mooy li ma la doon wax sànq ban monde nga bëgg a yóbbu ñi nga xam ne ñoom ñoo lay suivre parce que si artistes yi mënul yóbbu nit ñi ci mondam c'est un problème parce que su boobaa dañuy ne nag ah booy son bi dóob na raes na chill na mais après duñ la continuer di suivre mais un artiste a besoin ay nit ñoo xam dañ koy suivre si lu bëree bëri bëri xam lan mooy dundam wala mu bëgg a moom parce que tu dois pas raconter ta vie privée mais di nga raconter benn affaire boo xam ni nit ñi mën nañu gàttandu si loolu noonu pour suivre la loolu beneen point la kon l'idéologie ça compte bien pour un artiste kon artistes yi dañu a xam loolu beneen point mooy façon de communiquer façon de communiquer nag y a beaucoup yu bëri par exemple la promotion euh, message bi nga xam ne moom ngay jàllale si concept wala projet wala lépp li nga xam moom ngay def si interview bi parce si photoshoot bi malheureusement nag beaucoup de sénégalais dañ jàpp ni image mooy nga dem studio photo nga jampose nga nice nga puudaru nga rafet nga pap pap bu nice nga joxe ko loolu mooy li nga xam ne moom moo image bon mën na nekk mais dafa am li nga xam ne moom moo si suivi un artiste buy def li nga xam moom moo di photo wala buy def li nga xam moom moo di vidéo shoot wala lépp loo xam daf ko war a def rek dafa war a lancer dafa war a lancer un message mooy man dafa am lu tax mu war ko def parce que sinon da ngay niroog benn weesoo boo xam dem na si studio mu photo wala benn Samba Ndiaye benn Doudou Faye amoon loo koy ëppale même photographe ngeen dem si même photographe ngeen foto même foto ki póodal ko ñu póodal leen après yeneen niroo amoon lenn loo ko ëppalee tandis que un bon artiste buy def photo dafa war a am sorti lu tax mu war a def photo bi soit dafa nekk pour benn projet soit bu nekk daf pour benn concept soit dafa créer markam bëgg ko jàllale whatever pour ñu koy suivre mën a xam ni kii am na lu mu def mais pas dem studio nii photo wu parce que da nga nice pour nga foog ni jigéen nañ la war a suivre mooy loolu noonu non non même boo deful photo sax ñi mën nañ la suivre ça dépend si li nga xam ni moom ngay joxe projet bi ngay joxe idéologie bi nga xam ni moom nga indi si communication aussi comme ni nga waxee am na interview interview boo koy def normalement da nga war a reflété wu si li nga xam moom moo di sa parole sa communication dafa war a reflété si sa idéologie absolument sinon ça n'a rien à voir tey jii bu fekkee wax nga nit ñi gisuñu seen bopp si li nga xam ni moom moo di sa sa sa carrière wala sa idéologie wala li nga xam ni moom ngay jaay ça veut dire que ni tu n'es pas prêt pour être un artiste mooy maanaam tey jii nii chaque fois artiste di dem si ay télé dem nga fii dem nga fee dem nga fee dem nga fee lu xew rek nga dem en certain moment gars yi dañuy dañ lay poser les mêmes questions te bu ñu la poser les mêmes questions les mêmes réponses ngay wax non seulement tu parles pas de toi mais da wax si yeneen nit yoo xam ne ay par exemple ante nañu kii man la clash man duma kii man maa leen mën man maa leen duma or que tollatuñu foofu noonu fi ñu toll mooy créativité fi ñu toll mooy idéologie fi ñu toll mooy une bonne communication promotion pour mën a jàllale li nga xam ni moom moo di sa album de ce fait loolu noonu tamit foofu yëpp il faut nga bàyyi parce que un artiste si li nga xam ni moom moo di photo image am muy photo shoot am muy muy cover lépp lu mu def rek dafa war a refléter non seulement si li xam ni moom la bëgg a mooy message bi nga xam moom la bëgg a jàllale mais surtout aussi tamit dafa war a refléter si li nga xam ni moom moo di idéologie am maanaam communication moo nekk entre li nga xam moom moo di idéologie li nga xam ni moom moo di fan base bi kon tey jii l'image moom mooy rapport entre fan base ak artiste. pour muy clair parce que c'est très important et j'ai vu que ni beaucoup de personnes duñu respecter li nga xam ni moom moo di l'image et c'est très très très important bu loolu weesoo nag dama leen jox quelques exemples comme Hakim waaw néanmoins que ne amoon na benn pic bu mu fi defoon en certain moment il était en de perdre moom xam na li may wax euh, mu nekkaat di jugaat jugaat bi nag dafa am benn genre sorte de promotion dafa am benn genre sorte de force boo xam ni sam waa ji ñëwee na ko at li nga xam ni moom moo di photo déjà cover bi sa raconte tout si li nga xam moom moo di album bi jaar-jaar yi mu am euh, fad bi ñu ko nar a def kàmb yi ñu ko nar a gasal moo tax ngeen di gis paaka yi ñu koy jam na bon sama opinion la comme ni ko a Malathion waxee Picasso day jël tableau mu teg ko ku ñëw apprécier ni ko neexee man loolu sama pensée la xaw ma ndax c'est juste ou c'est pas juste mais man si li nga xam ni moom laa jàngatee li nga xam ni moom moo di Kovo boobu noonu et c'est ça l'essentiel maanaam jaar-jaar la bëgg a foofu noonu deuxième point mooy vidéo shoot bi nga xam ni def na ko mooy vidéo promo boobu noonu macha allah très dope parce que raconté li nga xam ni moom moo nekk si jam-jam yi nga xam ni moom la am si photo Kovo bi dafa aayit et aussi tamit rendre na si hommage beaucoup de personnes yoo xam ni ils sont ils sont respectés peut-être Sénégal à part bi nga xam ni fenkat la man dernière bi Koukandé bi bon respecte ñi nga xam ni moom mooy ñeneen nit ñi te loolu ça attire c'est une bonne stratégie de marketing léegi nag la demande est comme ni ma doon waxee si li nga xam ni moom moo di interview yi tey jii nii boo taajee Hakiil ñu def ko les vraies question nag questions yi nga xam ni moom mooy si wàllu album bi ñu poser ko des questions est-ce que Aqil dina mën a expliquer carrément li nga xam moom moo di concept bi est-ce que moom bokk na si ñu ko travailler su dul moom est-ce que yooyu yëpp sont des demandes à à se faire tant que Aqil deful interview bu complexe li nga xam moom moo di album bi là nit ñi duñ ko mën a comprendre te malheureusement loolu daf ko war a jox nit ñi daf ko war a won nit ñi après la sorti wala avant la sortie moom mooy xool nan la ko mën a choisir. de même que nag am na tamit beneen beneen beneen beneen beneen beneen artiste boo xam ni euh, gis naa leen benn genre label bu bees la mu ngi tuddu GFA Universal moom tamit ñëw nañu euh, indi benn genre cover indi genre benn affaire bu dóob boo xam ni moom lañ nekk di maye mais fii image bi dama leen ko bëgg a ngeen xool ko image bi dafa nice ba nga xam ni di nga si mën a capter lu bëri son mu ngi tudd taaw bu góor taaw bu góor moom mooy première doom nga mën ko def li nga xam moom moo di comparaison li nga xam ni moom moo di seen produit bi nga xam ne dañ ko bëgg a génnee quatre personnes la ñu ah après nga ñëw indi li nga xam ne moom moo di doom ji mu yëkkati ko nii ak micro bi moom manaam passion bi nga xam ne am na ko si musique bi mais li gën a nice li gën a nice mooy lampe bi nga xam ne tàkk na mooy bu ñu la nee doom bi juddu na jour bii jour boobu noonu moom mooy définir li nga xam ne moom moo di naaj bi nga xam ni wane nañ ko si photo bi en tout cas cover bi nii c'est bien pensé nag xaw ma nag ñoom nan la ñuy def ba dawal seen promotion pour mu gën a am li nga xam moom moo di attirance parce que ça compte ñoom leen jégal parce qu'ils sont pas encore connus a metti il faut ñu commencer seen bopp il faut ñu commencer liggéey xool ban formule la ñuy utiliser parce leen wax ni formule bii la rek waxul dëgg ku nekk nga xam ne moom moo di formule bi nga jàpp ni noonu la nga tànte tànte ba keroog ngay am si li nga xam ni moom moo di dëg-dëg bi bul yaaxamti parce que la patience aussi tamit fait partie si li nga xam moom moo di idéologie d'un artiste parce que ku yaaxamti rek dangay gaaw a dem nga gaaw a fay. GFA ñu ngi leen di xaar ñoom tamit seen sortie dinañ déglu son bi seen promotion bi nice na on va attendre que. son boobu noonu di déglu aussi tamit li nga xam ne moom la Hakill war a génne si album bi nii man nag personnellement du ma ci wax mais dinaa ko cons dinaa ko déglu dinaa ko streamer may sant ñépp nag aussi tamit ñuy dem di streamer album yi di jàppale album yi peut-être ñu am li nga xam moom moo di disque d'or si albumu Hakill bi en tout cas gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi ñu joxante daje si beneen vidéo King West la woon ak yéen pa pa pa pa Nigga taking your time, nigga di bala, ku fetch your bala, bitch. Nigga taking your time, nigga taking your time, nigga taking your time, nigga bala, ku fetch bala, bitch.